génnee àdduna ci bisu weeru koor Pape lu ñu wax ku dee ci weeru koor. Hmm? yow mi jàng oustaz lu ñu ci wax ci weeru koor. bu rawatina bis bu njëkk bi yërmande la. njëggal la njëggal la. njëggal la waaw kon yàlla jéggal la li nga def lépp. Hmm. waaw kon maanaam mën nañoo jàpp ne dal xel. dal na xel macha allah hmm. kon dal na xel. kon maanaam li mu ne moom dana ànd ak sëñ Saliou fu mu ko yóbbu mu baax kon sëñ Saliou yóbbu na ko. ci mu génn adduna ci bis ci ci ci bis bi njëkk bu. te xam nga bu bu génnoon bu génnoon suba bu génnoon démb. Cheikh Béthio bu génn mu am ñu ne ñun amuñu kon deewu weeru koor mm-hmm. waaye mu mu génnee te foo xam ne ñoom um nañ we démb mm-hmm. yàlla xaar ba um ñëpp ni um nañu ba ñëpp ni um nañ mm-hmm. kon ragal naa ne diggam ak Cheikh Saliou mbakke dana gën a leer incha yàlla bu yaakaar tas yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel euh, amoon na njariñ lool nag yi mu daan nàndal nag ba ñuy ba ñuy dem àjjana ndax nag jur gi ñu rey leen ci xéewalu yàlla ci jaamu yàlla day teraanga ci ñoom waaw jur juddu. ñu ñu ñu ñu ñu jagleel ko rek bisu yàlla. Mhm. pap dafa am solo. Mhm. xam naa ne yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu doon def ci yiw. Mhm. Euh, képp koo xam ne nag soppoon nga ko ñu ngi la koy jaal. képp kuy julli ñu ngi la koy jaal. Sénégal ñàkk na ku mag a mag a mag pap administrateur civil bu mag la ñàkk. intellectuel de très haut niveau. ci njàngum tubaab. administrateur civil ci jamono yooyu. njàng mu koowee koy joxe. kon du woon jaayil boo xam ne xamut di tëñëx tëñëx di dem. waaw kon kooku tey ak état Sénégal yëpp administration sénégalaise bi yëpp ñu ngi leen di jaale administrateur civil yëpp ñu ngi leen di jaale di ko jaale képp koo xam ne euh, man mas ngaa nekk sama élève Pape te bokkoon ci ay